عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر يرعون مكي ويا مأمون حبي ومركزي Euh, jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu topp ci Dakar live Feeling Dakar ñu ngi leen di bu baax tey nag nekk bisu nakar euh, Pape waa waajuram bu góor euh, génn àddina ñu fekk fi nag Sidaat Thioune ngeen xàmmee ko mu di xaritam ndax bu ñu nee dëj bu bees ñu gis ni dencaguñu mu bàyyi léppam ñëw ñu bëggoon xam relation ak Pape Birahim alors Sidaat maa ngi lay jaale lu ñu bokk. waaw maa la koy delloo di la ko jaale ci aussi parce que lu ñu bokk la. mooy li may wax di ma masawu famille Pape Birahim yëpp di leen wax sigil digaale di ñaan yàlla saraxam yàgg seen loxo parce que mooy li may wax rek nit moom amul lu dul itam te ci bisi lu mel nii nga ko mën a xame Birahim lu ma seq ak moom yaakaar naa ne lii rek moom mu war mu am bésu mbégte ma ñëw taxaw ko mu am bésu naqar ma ñëw taxaw ko donc kon maa ngi koy jaale li ñu bokk ki génn àdduna muy sunu papa la di wax yàlla na suuf oyof ci kawam Pape Birahim nag moom yaakaar naa ne maa ngi koy mos bu baax parce que sama xarit la sama doomu ndey la loolu yaakaar naa ne képp ku ku ko xam xam na loolu. aussi tamit man ku ma xam xam na ne Birahim sama nit la donc tey daal du beesu wax yaakaar naa ne juste dañuy dañuy méttitlu rek di wax ne. li am ci famille bi métti na waaye ñu ngi koy jaale daal di wax yàlla na yàlla na saraxam yàgg seen loxo du ñaan sénégalais yëpp tamit ñu ñaanal paa bi parce que suñu papa la woon te nit ku baax la te dem na ci dem bu sedd guy. lu leer alors yan relation nga sekk ak Pape Birahim ba mu jaral la tey nga bàyyi sa yitte yëpp ndax ñu bëri dañuy wax ne dañuy xaar ñetti fan yi wala dañuy xaar bisu ñaan yi ñu gis yow nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw Pape Birahim sax sedd na ko ci yow yan yan relation ngeen sekk tam. waaw sama xarit la sama xarit la bu dëggu la li ma naan xarit dina gën doomu ndey donc moom sama xarit la te wane na ko ci fànn yëpp man aussi tamit wane naa ko Birahim yaakaar naa ne sama diggante ak moom euh, ñu bari xam nañ loolu xam nañ ne ñaar ñi en fait dañoo jegewoo jegewoo bi mooy dañuy dund lu nekk lu dëgg euh, lu mu xam wax ma man aussi lu mu xam wax ko ñu nekk suñu bopp tamit mu nekk nit bu dëgg nit ku julite aussi ci tamit man tamit noonu looloo waral ñu nekk ay doomu ndey waaw ah, ay xarit lañ xarit boo xam ne dafa dëggu daal looloo waral lii am nii dafa war a nekk ci premier personne yi nga xam ne moom la njëkk a gis muy sidaat ma ñëw fekk ci ko ci naxar bii nii donc sama xarit la daal xarit daal waaw xarit la xarit la macha allah dénk waajuram mu nekk naqar boo xamante ni mis li ma koy dénk mooy mu muñ xam ne lii ci kër gu ne lay dugg mm-hmm. waaw yaakaar naa nag lii dafay wane na àdduna amul solo donc na ñëpp yéenante jàmm li ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal Birahim li ma koy dénk mooy mu muñ bu lii paasee incha allah mu nekk ci liggéeyam parce que liggéey lañ ko xamee mi ngi dem préparé yu bari waaye donc comme dogal bi wàcc na ci kawam li mu mën a def muy muñ doyloo yàlla ñaan yàlla lii gëj fii donc après mu àggali carrière am ci jàmm. ok Khadim ñu ngi lay nuyu di la ziar bi biñ la jaaree rek li ñu bokk. waaw ñu ngi leen di delloo ziar di bokk ak yenn naqar bi mooy comme ni nga ko waxee rek mooy Pape moom nit bu nit bu baax la. Mm-hmm. nit bu yiw bu am diine aussi yàlla boole ñu euh, mu nekk koo xamante ni il est façon yàlla dogal nag lii dal ko mu doon naqar ñu ànd kook moom waaw loolu moo fi nekkoon suñu ay tànk. di ñaan yàlla yërëm ko xaare ko ci àjjana yi gën a kawe defal ko fa mu nekk fi mu jëm gënal ko fi mu jóge defal ko mbooloo mu jullit aussi waaw loolu daal lañ ciy wax. alors ci Pape Birahim mi nga xamante ni yaa ngi ànd ak moom muy sa parce que ku nekk dañuy wax que ni ànd ak artistes yi yombul rawatina ñi nga xamante ni peut-être dañuy yëg seen bopp ak yi ni mel Pape Birahim bon genre. waaw Pape Birahim comme ni ma la ko waxee léegi rek nit la boo xamante ni mooy nit dafa lëndëm comme tubaab day wax ni la personne est énigmatique mooy nit boo ko xamul rek xamoo ko waaye yàlla dogal na ci liñ jot a ànd gis naa si moom nit bu bu bu yiw bu am bu am diine aussi waaw mu nekk nit boo xamante ni nit sans façon la mooy benn melo la quoi waaw ku baax la yiteem day nekk yitey nit ñi aussi waaw macha allah quoi waa li ma mën a wax mooy comme ni ko Pape waxee rek mooy nee na waajur la boo xam ni euh, waajur bu amoon diine la aussi. boo xamante nii léppam suñu boroom la ko ko joxoon waaw muy mel leen comme li nga wax rek dañ koy ñaanal suñ boroom defal ko fa mu nekk gënal ko fa mu jëm gënal ko fi mu fi yàlla woyofal suuf ci kawam defal ko fa defal ko mbooloo mi jullit yam fay fekk aussi waaw waaw yàlla yokk ko xolu muñ rek ndax xam nañ ni àdduna moom dund ak dee ñoo lii moom suñu borom moom moo dogale noonu àdduna mooy suñu borom dénk ko xolu muñ te defal ko euh, xéwal yu fooxe njottam ba mu mën a continuer li mu yore woon famille mu mën koo gérer quoi c'est important merci beaucoup alors mbokk yi ñi ngi toog ak Lamine Lamine ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi la jaalee li ñu bokk wayjuru Pape Birahim génn àdduna nga nekk xaritam euh, tey ban témoignage nga ñuy defalal ci Pape Birahim waaye tamit papa bi nga xam ne génn ku baax la. nit ku am yar nit ku nit koo xam daal dafa wàcce boppam waaw man sama xarit la man ndax maa moom yaa maa moom yàgg nañ liggéey daal yàgg nañ liggéey yàgg bokk ay liggéey fu ñu liggéey bari na lool waaw di ko jaale nag di ko masaw yàlla na ko suñu borom teeru si àjjana fu daw si suñu borom jégal ko yërëm ko mais yéen at yéen a ngi def liggéey bu rafet waaw am na am na ñoo xam doy am na ñoo xam ne du mu gis lii mooy même yéen a koy wane waaw yéen a ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu sell la macha allah yal na liggéey bi barkeel di jaale Pape Birahim la di jaale rakkam yi ñoom jim di jaale ñëpp di jaale senegal daal waaw tey Sénégal moom moo moo moo moo moo am waaw Pape Birahim moom suñu xarit la ñu yàgg lool. papaam bi nga xam ne moo génn àddina ndax mën naa wax di seede bi benn la ñëpp rek ni ñuy wax ko mooy dafa judd non papaam moom suñu baay jooju ku oyof la woon ku bëggoon doom ku bëgg njaboot waaw bëggoon na njaboot lool baax na yaru du ko ñaanal yàlla na ko suñu boroom jéggal yërëm ko si barke Mouhamed waaw loolu daal laa ma doon wax man. du ko ne mu muñ waaw du ko na muñ na am xolu muñ waaw du ko ñaanal nag waaw du julli du ko ñaanal moom Pape Birame sax moom julli moom kenn du ko wax kenn du ko wax dafa jullite waaw loolu laa loolu laa la lu mu doon wax macha allah ok kontaan nañ jërëjëf